loolu on se souvient fii passerelle bi bi ñuy taw ga tabax passerelle yi fii nii ñu gis benn chauffeur taxi boo xamee ni parce que circulation bi dafa mu yéeg ci kaw passerelle bi kooku kooku dañ ko vilipender pendant un mois. donc jàpp gis naa. jàpp nañu ko sax <laughs> bañ ko jàppee ñenn ñi naan non c'est-à-dire yërmande gis nga am na yoo xamee ni jarul yërmande xamul tax gis nga ñii di faatu ci biir oto yi nii ci. comportement yu mel nii xam lu ñuy mujjee autorités yi ñëw ñu ngi jaale def tweet wala post Facebook nee na ñu ngi jaale ñu ngi massawu ñu ngi nangam mais avant ngay jaale di massawu mais revient sur ses comportement c'est-à-dire il faut zéro tolérance boobu ñuy wax mu bañ a doon un mot wala une phrase vaine comme ça un vingt mots mais mu doon loo xam ne day am contenu moi ça sàmm ça me beaucoup plus que yeneen yi am xamul tax dama am ay mbokk yoo xamee ni peut-être ku mel ni man amoo oto da ngay dugg euh, nu ñu ko weete pour voyager nga dugg ci benn euh, war gaynde mooy lan lu lay wooye tomb war gaynde je rien contre les gens qui veulent faire des efforts par rapport ak li ñu yore ñu bëgg ci am as tuut mais lan lañ doon def ci yaayu jamono da ngay gis wargaynde bu yore téléphone portable di filmer tableau de booram pour wane vitesse bi muy daw pour après mu doon challenge entre ñoom Cheikh Abdou Lahad Faye yore otom di dem Saint-Louis di filmer di wane ni dawal na ba deux cent à l'heure ma yore sama oto di dem man tamit Daaru Muxti filmer sama tableau de bord pour wane ni dawal naa deux cent dix kilomètres à l'heure mu doon après ñu koy partager naan waaye tey maa la gën a gaaw ak sama oto gën a dëgër sama oto gën a baax mais ça ce sont des comportements yoo xam ni ce sont d'abord les sénégalais ñoom seen bopp ñoom ñoo war a vilipender ñu mel nii tey gis lii nii di romb nii on l'a partagé sur les réseaux sociaux depuis deux jours man j'aurais attendu wala j'aurais souhaité que tey dans les journaux que ñu bindal ma benn titre ne ma gendarmerie wala nangam jàpp na chauffeur bi yore woon oto nangam ak chauffeur bi yore oto nangam ñu ngi ji entre les mains la gendarmerie nangu nañ seen permis de conduire jël nañ seen bus parce que bus yi ñoom duñ ko moom de ñiy fooye bus yi nii dañu am transporteur boo xam ne mooy moom bus bi jox ko ay chauffeur pour mu dawaleel leen transporteur bi moom bus yi euh, sa oto am na noo xam doo ko dawalee noonu ci tali bi de nga moom ko jëndal ko sa bopp. ñàkk ko dem peut-être banque ñu lebal la nga dem lijjanti ko jore sa oto am na noo xëy doo ko dawalee ci oto ne waaye nga jël ay doomu aadama dugal ci ginnaaw ñu nekk ci biir oto bi ñoom seen bopp ñu nekk ci biir oto bi waxuñu dara man su ma nekkoon ci biir oto bi nii chauffeur bi par alpha ou bêta dina taxaw ma nekk ci biir oto bu mel nii quelque nañu ko ñàkkante man ak yow nañu ko xeex man ak yow mais tu vas xamul tax pas pour ma vie man mais ñi nekk ci biir oto bi ça c'est des choses yoo xamee ni vraiment ngeen baal ma c'est un coup de gueule boo xamee ni je ne peux pas laisser passer ce genre te sénégalais warul a bàyyi lu mel ni ñu koy sataan ñaata nit ñoom ñoo ciy faatu ci doomu aadama ñaata doomu aadama ñoom ñooy faatu ci ay comportement yu mel ni c'est pas seulement à dénoncer mais dañ ñii dañ leen war a jël dugal leen ci biir kaso ngeen baal ma.